ayca di leen nuyu bu baax a baax internet Leewtoo TV ah, national international bis bu jot na bis bu mag bi le 19 décembre Tapha Tine Boy Niang Mansour fi ñu nekk ni nag mooy kër Boy Niang kër curuxu curuxu borom càppaacële borom kopp fonday dañuy dugg xool ambiance naka lay amee ah avant combat bi Mansour ayca go go go go go go go <laughs> kër Boy Niang lañ nekk ka nga gis noonu mooy Ndeye Marie sëri Boy Niang ah borom teraanga yi ci man dama ko bëgg lool waaye xam nga ne ambiance bi nii la mën a demee ah Kër Boy Niang la ñëw foog ñu xool cappaatool yi naka la ñuy waajalee combat bi nga def bëgg naa la. waaw si la rek yàlla may ko ndam. waaw Boy Niang. waaw mu toog ko rek. làmb la rek. bilaahi. loo gis yow. Boy Niang ko bu yàgg loolu kenn waxatu ko. daan na curuxu curuxu bi la. ndax jërëjëf bi de. Tafatin xaar. paas yow. ab yaad la ala Fallou. Fallou ma ñëw Aïcha nuyu naa la waaw soona si ñu ngi lay siyaar. waa Leewtoo TV la. waaw ça va nooy def. ñu ngi waajal combat bi. waaw ñu ngi pare ñu ngi pare comme d'habitude rek comme ni daan ko defee chaque année. vraiment am nañ confiance bu baax te xam nañ suñu mbër li mu mënee xam ak li mu indi. yàlla baax na ndam rek. incha allah Aïcha. champion maa ngi lay nuyu. maa lay fay bu baax. maa ngi leen waajalee ngoon. waaye sant wér. maa ngi koy waajalee. ah combat waaw pare nañ fépp. si Serigne Sall jàpp gàng rek dëpp ko waaw waaw moo ko jàpp rek jaan suñu wa waaw sa doole gi nii de Aziz Ndiaye. waaw doo ma nuyu. waaw nuyu Sarr na nga def. waajalee moom ñun pare nan moom. jël lépp teg ko su loxo yàlla suñu borom. ndax biñ defee li ñu war a def ànd ak suñuy mbokk. nekk sa entraînement yi guddeeg bëccëg dem fi ñu war a dem yëpp ñëw. li ñu des lépp moom dañ ko teg si loxo yàlla suñu borom góorgóorlu def fula def fayda rek bégal waa Pikine daan ñibbisi si si kàttanu suñu borom loolu la fas yéene def ko merci beaucoup. maa ngi yàlla baax. yëg fu di ñaan ci yàlla yàlla may ñu ndam ci kàttanu yàlla. li bëre làmb ju mag instant bi boo waroon yeb la nga ko yebbe maam. ah di ko yeb rek bu demee mu xam lu muy def tey xool ay fan sam benn boo non violence ba ñu am bu bëre ko ci jàmm yàlla may ko ci ndam ci kàttanam ak dooleem ñu feete ko fi loolu la ñuy ñaan yàlla tey. ban message ngay lancer supporter ñu ñuy réglé rek te toog ndax nit bu sa mbër di bëre da ngay toog jàppale sa mbër. mu xam lu muy def mais bu sa mbër di bëre ngay def violence rafetul jaaduwul nit bu li jàppale sa mbër mooy toog supporter ko li nga war a def nga def ko ba yàlla may ko ndam ngeen ñibbisi ci jàmm ak salaam te yàlla na ko yàlla def ci kàttanu yàlla ak baax yàlla baax. merci maman. Eh. maa ngi doon wax ci booy ñaaw moo ko jur. te maag baayam la woon maag baayam la woon démb tey soog saalu Pape Diop mbër kan saa yu ma wàccee sécurité danaa ñëw buy ko buy bëre ma ñëw taxaw ndax maa bàyyam la woon démb dégol sa pigin te lu bees yàlla nañu yàlla may ndam si kàttanu yàlla si kaw tafatin barki borom Touba yàlla def lépp mu baax si barak borom Touba. ayca champion bi nuyu man may fàllu di booy ñaan sunu doom la waaw ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla may ndam. ne ci barke Cheikh Saad Bou Tafatin meeru dara xam nga affaire ba lan la njol tabbi gësëm gësëm te bu jeexee rek jeex na daan ko duma daan. champion nuyu naa la. Eh, ñëw leen may ko mu dugg ci waa kala ñëw leen ñëpp kaay de. njëkkee ci la. fay nar. bëgg a teel a dem stade yëngal stade wàccee ko nànk booy ñaar teel a daan ñu teel ñibbisi. Ah, ndam rek incha allah barke maam Cheikh Yirim. ayca Numbaan. salaamaaleykum maman. yaay booy nuyu naa la. fay naa la. noo gisee lamb ji tey. waaw ah, lamb ji ala doome rek ñu daan jaar rek. wax booy ñaa. ah. wax booy ñaa. booy ñaa suñu victoire rek lañ koy wax loolu rek lañ koy wax. mais ñu ngi añ de añ bàyyi ñu ah? rafet bi Mansour nuyu naa la soxna si. fay naa la. looy wax booy ñaa. booy ñaa daal dama naan ak dal ànd ak yar bi ñu ko xamee jàpp rek daan ñu incha allah. moom jëkk mu sóoroo def ti saison la ko fu mu yem neex luñ ci bañ bu ko ci bañ nuyu naa la yaay booy. waaw ñu ngi sant rek di ñaan yàlla. <laughs> loo wax booy ñaan. ah ñu ngi sant rek di ñaan yàlla suñ borom may ñu ndam lu sedd guy mu jig ñi jig ñi ñun ñëpp ñu fekke lépp ko waaw lo lañ koy ñaanal yàlla may ñu ko. <laughs> merci man. gars yi dañoo teel a midi midi lañ añ midi. gars midi. firi rek bàcc firi rek bàcc Boy Niang Boy Niang day daan Firi Bathie. Firi Bathie oh day daan. Oh, Boy Niang day daan. Mansour kañ wax ak mairie nee foog ñu wax ak moom léegi nañu wax ak mairie ayca yaay booy maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay sant di la fay di ñaan bés bii sunu doom ji ba euh, Boy Niang yal na ko yàlla may ndam ndax xale bu yaru la baax na yaru na yaayam baax na yaru na yal na ko jig nag te nu wërsëg ak muuram mu ngi mos a ko cat ak làmmiñ ah ndam rek la ñuy wax moom ndam rek. incha allah ah lépp lu ci mu laaj rek ñun na ko def ndam rek. merci beaucoup dañu jël kii maas daal di ah. yaa may dégg. ankañ. eh maasu gi daa daa laal booy ñaan de. nuyu naa la. fay naa la. ndax añi. añi neex na de teel na pare. looy wax booy ñaan. xanaa yàlla may ko ndam lu sedd rek xale bu am kersa la bu lay xool sax day sëgg. yàlla na ko yàlla may nag ci barke Serigne Babacar si te mu jig ko. man nañ ko jël ci maire bi maire daal taxaw jàpp ñàmburam yaa ngi nii dawoo ci dara nuyu naa la. maa ngi lay fay. booy ñaa maa tudd Fane Ndiaye sant Inde. booy ñaa di sunu mag di sunu xarit barke sëñ Fallou ñu dëkk bi dëkk bu rafet yal na ko yàlla may ndam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ci barke Serigne Cheikh Yirim Ndumbaan mi sëriñam ndam rek ndam rek. nga man na ñibbi ndam rek man nee na ndam rek ndam rek ay ndam rek eh ndam rek ndam rek ay Boy Niang ndam rek ay waay ndam rek ndam rek ay waay ndam rek fii ndam li fii ndam li Israël ndam li Israël. aja lamb log ah Mansour lamb log nuyu naa la. waaw maa fay naa la. ngeen bis waaw waaj nañ ko ci côté yëpp plan entraînement plan mental plan moral plan mystique côté yëpp daal. mystique. waa waaj nañ bu baax daal côté yëpp ñu dara. boo ñaay lañ ko yebee mooy tey mu ñëw wane boppam wane ne xale la wane ne tafaatin maa la gën a bëgg bis bi dox si gardam duma ko jàpp ko daan ko ñu ñibbi. monologue mooy wax. Tapha Tine bu xeexee ñu duma ko bu bëree ñu daan ko. mooy wax la kii. Aja nuyu naa la. waaw fay naa si. ah waa mais tey ndam rek. incha allahu rabi ndax suñu mbër. depuis ay weer weer préparé nañ ko ni ko war a préparé. mais ñun pare nañ. waa ji ñu mais dañoo pare. Tapha Tine ki muy bëre day xale gëm boppam. di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ndam ci barke Cheikh na Tidiane barke Cheikh Sabou ci barke Seydina Mohamed yéen nag yàlla dafa leen jàmm ndax yéen bu du kenn du ñu gis bay déglu suñuy kàddu waaw boo ñaan ndam rek yàlla jàmma ko sàmm dama xaa yónnee nag nee naa ko dëkk fan Touba nga ñëw ci Boy waaw Boy Niang sama gaana sama waaye yàgg nan dama fee nekkoon école bi yàlla dogal nekkatuma fi mais combat bu mën am damay ñëw a ah, di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal ndam ne ko mu teey ni ma man tafaatin moo ko dàq bëre ndax ndaadaan la ndax man ak moom yàgg nañoo géew contact ma ak moom xam naa baax lim donc lim ma ne maa ngi ko ñaanal ndam bu baax daal maa ngi ko ñaanal ndam bu baax a baax a baax bégge bu baax daal gi nangu ay fansam ba léegi ñu ngi naan Ndeye Mbacke Ndeye Mbacke Ndeye Mbacke bu jàpp. salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum dëkk bi. waaw waaw waaw. booy yàlla ko yàlla may ndaw. dam la ah. parce que léegi Seydou Boy Niang Ndeye Marie yaakaar naa ne instant pression moo ko jàpp pression moo ko jàpp waaye terewul mu ngi ànd ak ànd ak jëkkëram ànd ak waaye ànd ak xaritam comme ni ma ko waxee lii nekk xolam nag xam naa ko wax naa leen ko. <laughs> ay suñu moment bi li mu wax tamit. booy